waqar faaraqar ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal nañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew. tey ñu bëgg xam président Macky Sall lan la liggéey ci département parce que def na sept ci réew mi ñu bëgg xam nag lan la. ban réalisation la defal département ñoro loolu lañ bëggo a xat monsieur Aly Mané waaw jërëjëf ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ci liggéey bu rafet bi ngeen def té li ngeen commencé né Macky Sall juroom ñaari at yu mu def fi réew mi fi ñu taxaw ni mandargal na fi tok nañ fukki at ak ñaar Ablaye Wade tok na defarul talibi tay prolongement talibi ak financement banque africaine de développement gis ngeen pont pont biñu def pont wu biñu def mu doon ko inauguré si tey Macky Sall moo fi indi bourse sociale Macky Sall moo fi indi lépp mais li ma bëgg a lancer appel rek ku bëgg a liggéey ak Macky Sall ñun duñu xëccoo ak ay transhumants ñun ñoo xeex Macky Sall mu falu. ñun bi ñuy xeex Macky Sall am na tey ñuy ñëw di xëccoog ñun ay PDS dañu doon di jënd ay carte ñun jaayuñ suñu bopp. monsieur le maire monsieur le maire lan mooy force Ali parce que. nekk nekk sénégalais bu ordinaire aw ma dara mais li ma gëm ba gëm ko mooy que ne Macky Sall. moo baax ci Sénégal Macky Sall moo baax ci ñooro gi te li mu weñ Nioro yëpp xam nañ ne Sénégal yëpp xam nañ ne Nioro à cent pour cent Macky Sall ànd ak Macky Sall nag jarul xeex jarul xulo c'est des actes ñun démb 2012 dañu ànd ak Macky Sall xaaruñ ba Macky Sall gañe ñu ànd ak moom nit ñi nañu dal nañu dal on n'est pas des transhumants nous on est des alliés de Macky Sall il faut qu'on nous merci jërëjëf yéen waa mbokki internet Farokh TV ñi ngi jàkkaarloog toogoo tey Moustapha Thiam mooy Moussa la maire Darou Salaam a xam nag tey président Macky Sall def na sept ans ci réew mi di laajaat deuxième mandat Moussa la maire président Macky Sall lan la liggéey ci département Nioro Leba ak sa commune Darou Salaam bi nga xam ne yow yaa ko jiite waaw ñu ngi lay nuyu comme ni nga déggee sama naataango maire Aliou wax léegi da ngay gis ne tey ji si département Nioro boo xoolee mais biit commune Nioro nu mu meloon gis nga réalisation yi si am dèjà loolu rek mandarga moo wax na la tali bi waaye man dama lay wax canalisation yi nga xam ne tey jii moom def na ko si biir euh, commune kii bi département commune Nioro bon loolu mooy firndeel ne. tey ji am na lu bari lu bari loo xam ne expliqué ne wax na ko ci loolu mooy firndeel nañ Macky mi war nañ ko mën a tey ji jox ko deuxième mandat pour que tey ji mu mën a continuer ay réalisation boo xoolee tey ji da nga gis ne Nioro tey ak Touba Saloum Darou Salaam yoon woo yëpp mu ngi nekk axe boo xam ne bu ñuy goudronné la te ku koy goudronné c'est le président de la République. waaye yow sa commune sa commune bi nga xam ne yaa ko jiite muy président Macky Sall bëgg nañ nga wax ñi ñaari réalisation wala buy benn sax boo xam ne moo ko def di commune Darou Salam soxla nañu xam ko parce que nag bu duggoon dugg ci mbedd mi di laaj nit te te waxu leen loolu xam ne président Macky def na ko biir commune Darou Salam waaw man naa la wax tey ji nee la yoon bi nga xam ne tey ji mu ngi ñu koy gis lu commencé si Nioro jëm Touba Saloum ci réalisation la bu mooy loolu tey ñëpp gis nañ tey ji mi nga xam ne am na Daaru Salaam te AGETIP tey ji muy programme boo xam ma bokkee état tey ji man lu ma def mais programme mu la parce que tey man buma ma ak mom mu nek ko xamné ne tey jii si bopam manam amna 9 compétences no domaine de compétences yu transféré ñu ñuy réaliser donc lu ñu réaliser si momam la té yow tey jii du la ñu euh, am natarlé si réalisation yi nga xamné ne tey commune bi fu mu siège bi fu mu ne tey jii am ngeen ko fa. donc lolu moy firndel li nga xamné ne tey son excellence tay mu ngi ñu soutenir pour ñu def ko parce que man tay si mom la bok lutax mu bok si mom man maire la té maire dafa am ay ndombal tank yo xamné état bi moo ko waroon def mu jox ñu ñu koy def donc te loolu ñu ngi réalisé tey mën leen la wax esplanade bi mën nañ la si wax euh, collecture ak i poste de santé yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy def ak mur de euh, stade municipal donc réalisation commune bi la waaye loolu ci compétence yoo xam ne transfert ñu la ko donc daal ñun jàpp nañ ne dañ ko war a mën a élire ak deuxième mandat pour que mu mën a kon nag merci monsieur le maire ñi lay gërëm bu baax di la sant bu baax sa sa sa waxtaan wu rafet bi nga wax jërëjëf asalaamaaleykum yéen suma mbokk waa Sénégal suma mbokku waa saalum waa Nioro maa ngi leen di gërëm di leen sant man la Kéba Ba di len ziar bu baax vraiment di contane ci mobilisation bi ñu def tay fi ci Nioro Mamoundary di len wax na len ñu len gërëm di len sante di gërëm Sénégal di gërëm Saloum di gërëm président Macky Sall li mu def tay ci Sénégal def ko ci Saloum tay muy lo xamné ni machallah gis ngeen ko tay muy fi nga xamné ne Gambie frontière bi mo nga xamné moy moy mooy pont bi nga xamné mo relier Casamance Gambie Sénégal partout ci Sénégal ñu ngi gërëm Macky Sall di ko ñaanal man la Kéba baba def suma mobilisation ànd ak sumay xarit ci ginnaaw suma ministre Abdou Latif Coulibaly ak waa Saloum di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ne leen vraiment 2012 17 2019 incha allah ñu waajaat ko falaat président Macky Sall parce que ku xool li mu def nga xam ne jar na falaat waxuma la dara mais premier tour ak 80 pour cent ma président Macky Sall mérité na ko parce que nag li mu def ci Sénégal def ko ci Saloum benn président mosu ko fi def ci gàcce ngalaama kon nag ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm aussi waa euh, télévision bii nga xam ne nii wax dëgg yàlla bu extraordinaire la muy farax TV ñu ngi leen di gërëm Forox TV di leen gërëm di leen sant di leen wax ne leen gàcce ngalaama jërë ngeen dem merci. waqar faaraqarra ngir ngeen di jot suñu vidéo nak fo leen tollu ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fi ci Farokh TV ngir mëna jot mbooleem vidéo bo xamné duggal nañu ko ngir mëna xam mbooleem lo xamné dina xew fi ci biir réew mi wala bitim réew